Ah, je vous ai entendu parler euh, d'Amadou Ba en des termes peu peu peu élogieux mm -hmm. vous le décrivez comme quelqu'un boo xam ne euh, il doit parler aux gens de de ses milliards mm -hmm. sombre boo xam ne te te dans l'air mm-hmm. euh, foofu noonu ndax mën mën nga ci ñëwaat tuuti waaw xam nga kuy jiite dëkk dañu war a xam lu bëri si yow waxuñu vie privée mais fekkee ñu ne yow fonctionnaire nga mm-hmm. gérer nga impôt et domaine pendant des années ñu ne gisee gisal nañu alal goo xamante ne bëri na. Mhm. tabax nga kër fi nga xamante ne kër yi ay million la fay jar voire des milliards. nit yi di ko wax nit di xaar si yow déclaration de patrimoine nga ne yéen Sénégalais yi man mii bëgg leen jiite gannaaw gu ma liggéeyee tant d'années lii laa am ci alal te fii laa ko jëlee. moo tax faut pas sous-estimer le discours de Ousmane Sonko ah bi wax 15 ans laa def laaluma dara dafa am solo. Mhm. ku si mel ne Amadou Ba nag tant deful loolu mérité wul jiite Sénégalais yi. Hmm? déjà parcours am alal xam nga am a ñun. mais alalu Amadou Ba dañ koy wax rek mais sax gis nañ ko. waaw moo tax ma ay wax rek ci nit ñi moo tax moo tax ma la ñu ne moom nañ jóg mooy la Sénégalais yéen. lii am dégg naa ñu ne dama am alal. waaye en réalité lii laa am. samay compte mu ngi nii et puis teg lépp lu ñu ko mën a vérifier waxuma mu gaawantu def ay prêt non joxe fii joxe fii defe mm-hmm. tokk ñëw ne tokk bi la am <laughs> mais nag lépp leer ñëpp xam exactement fu mu am loolu dëkk yayoo ak sénégalais yi mm-hmm. tey ñu bëri gis naa leen suñu demee jàppale Amadou Ba intérêt dong leen fa yóbbu parce que jàpp nañ ne am na xaalis suñu ko jegee mu ceebal leen mhm. te déjà am na ñoo ñu ngi leen ceebal ñu ngi leen di i base naan dañuy maye ko def mhm. leen jox ak jege bu ñu jegee Amadou jox leen ay facilité ñuy ñuy doxal mhm. loolu benn la te loolu vraiment ku ko deful mérite woo jiite Sénégal beneen bu si topp mooy ku jiite Sénégal dañu war xam sa gis-gis xam sa xalaat waaye ñëw toog rek mais eh, président lu mu bëgg baax na. non mais continuité lay def. parce que aussi PSE am na ci rôle bu am solo bu ñu ci joué. non mais na ci wax mais ñëw nii rek ne président daal continue bon fekkee continuité la bëgg c'est ça mérite d'être clair na Sénégalais yi xam ne Amadou Ba moom su toogee comme ni mu ko waxee mooy comme Macky moo toog. Mm-hmm. léegi fekkee ñu bëgg Macky toogaat moom dañ ko jàppale ñu bëgg Macky dem moom nañu fexe ba moom du fi jege sax toog. Mm-hmm. moom ak ñu mu àndal ñëpp.